ausu billahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum taala wa ñi ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi di nuyu mbokki taalibe yi di tuub tey jéggalu di jéggalu mbolem ñi nga xam ne dañoo bokk ci yonent bi sayidna Muhammad sal yonent bi sallallahu sallam di tuubalit njabootug Serigne Touba gi ak njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ñi ngi li waral wax ji dañuy wax ci warma yoonu murit war ma yoonu murit nag jàpp naa ne ku mel ni maam Cheikh Mbodj mii toog tey am na sañ-sañ ci wax ci ndax man sëñ Matar Mbodj mooy sama waajur sëñ Matar Mbodj sëñ Modou Mbodj waajuram sëñ Modou Mbodj nag mooy ki nga xam ni moo liggéeyal Cheikh Ibra Fall ba mu gërëm ko sëñ Matar di taawam man mii may caatum sëñ Matar ma gis nag ay yàqu-yàqu yu baree bari yoo xam ne daa xew ci jamono te yàqu-yàqu yi bàyyikowut ci ñenn ñu dul ay nit ñoo xam ni doonuñu nit ñoo xam ni sax jar nañoo bàyyi xel wala ñoo am solo ñu ciy tuub nag mboolem njabootu kër sëñ Modou Mbodj gépp ak njabootu kër Cheikh Ibrahima Fall gépp ñuy tuub ci baat yu ñaaw yu dégg ñu koy wax te ki koy wax di tuddoo Cheikh Ibrahima Fall te Cheikh Ibrahima Fall doon koo xam ne jàpp naa ni dereeti Cheikh Ibrahima Fall làmp Baabul Muridiina maanaam kenn du ko yor di wax kenn Sëriñ Tuubaa lenn loo xam ni teggunuwut am ku ni wax maam Cheikh koo xam ne daa ne Canada di wax wax ju bon di ko jëmee ci ki nga xam ni moom la ñuy wax Cheikh Basiru Mbacke moom Cheikh Abdoul Xaadir di ko jëme ci ki ñuy wax Cheikh Abdoul Bali moom soxna Bali moom soxna May di ko jëme itam ci jàmbaar ji nga xam ni tey jii royuwaay la ci yoonu kër seex Ibrahima Fall gépp ñu koy wax Serigne di xadi di ko jëme ci ki nga xam ni tey jii mooy Cheikh Mouhamadou lu Fall moom Cheikh Mourou Aminta nga xam ni kooku mooy sagub kër Cheikh Ibrahima Fall ndax lépp loo xamante ni bii nii waajuram bu baax ba Cheikh Modou Fall mi ngi ko doon def mi ngi koy suuxat na ko sëñ bi doon defee ñuy tuubal nag mbooleem mbakke mbakke yi ku sant mbakke ñu ngi lay tuubal di la jéggulu di xam ni kooku de day tuddoo Cheikh Ibrahima Fall waaye dereeti seex Ibrahima Fall kenn du ko yor di wax lu ñaaw di ko jëme ci kenn ku Sëriñ Tuubaa njabootu Cheikh Ibrahima gi xamuñu kenn ci njabootu Sëriñ Tuubaa koo xam ne am nga ayib ba ni toog di wax say ayib amul waxuma la ak naan diw moo dib sëriñ diw dib sëriñ nangam loolu ñu ngi tuub sax ci dégg gi ak wax ji tey xamle ni ñu ngi tuubal mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi tey xam ni loolu kenn Cheikh Ibra Fall du ko wax Cheikh Ibra nag su fekkee danga nga bëgg a wër njabootam bëgg leen a xam dangay ngay ku mel ni Asan waajuru sëñ Amdi Xadi sëñ Asan di dund loola boo bëggee xam kan mooy sëñ Assane wala nga bëgg xam doom ju sëñ Assane jur da ngay xool sëñam di xëdi ak doxinam ak rakkam yi ni ñàpp ci ginnaawam ni ni doxee ku koy doxee lu mu wax loola bu boobaa mën na ni kat doomi sëñ Assane wala sëtub Cheikh Ibra daa wax lu ñaaw su boobaa loola jàpp naa ne su fekkee luy am laan njuumte lay doon te dina ko tuub dina ko jéggalu waaye koo gis royut sëñ am di melut ni sëñ am di bu nee la doomi sëñ Asan la wala mu ne la sëñ Asan na ma digal wala nangam loola da koo wax waaye doxut doxinu sëñ Asan doxinu sëñ Asan ña koy dox mooy doomi sëñ Asan yi nga xam ne ñëpp xam nañ leen ku ne dégg leen ci ñuy liggéeyal ne ci réew mi di liggéey waaye nit ku ne Canada yor sa làmmañu ñaaw ku tëb nga wax ko lu bon te amoo benn archive bu rafet kenn mënta gis lu rafet loo def wala lu baax loolu amul solo du Modou lu mu baax ma daana wax na nit de mën naa jëf baraw waaye kenn mënta wax baraw jëf moo am solo Cheikh Ibra Fall jëf lañ ko xamee woon ci loolu la nekkoon ci la nampatal ak njabootam képp koo xam ne nag war maaloo njabootu Sëñ Tuubaa gi jëfoo lun wax ni kii kat njabootu Cheikh Ibra Fall ko wax loola dañ ko wax waaye kooku du njabootu Cheikh Ibra njabootu Cheikh Ibra leen xam mooy bu ne mbàkke la ñu bàkk ko liggéeyal ko topp ci ginnaawam lu mu digle ñu def lu mu tere ñu bàyyi ko loolu mooy doxinu njabootu Cheikh Ibra waaye nag yàqu-yàqu jamono moo tax fi ne ku ne yor sa làmmiñ di wax jaar fee di wax waaye nag ko xam ni kenn xamu la kenn gisu la parce que bu doon ku ne ci réew mi di wax manees na ko waaye koo gisut déggoo ko kooku loo ko mën a xanaa xamal doomu aadama yi nag ni njabootu Cheikh Ibra moom ku dere Cheikh Ibra dara ci am na loo xam dinga ko jomb sa digganteeg Serigne Touba loolu ñu ngi leen koy xamal di ko xamal mboolem adduna bi di ko xamal réew mi di ko xamal mboolem jullit yi di xam leen ni daal ku bokk ci Cheikh Ibra Fall deretam di daw ci yow nga xam deret Cheikh Ibra daw ci yow doo yëkkati lu ñaaw mukk di ko jëme ci kenn Serigne Touba mm. rawatina doomi Serif Assane ku naan Serigne Assane la jur loolu doomi Serigne Assane du ko def du yëkkati lu ñaaw mukk ko jëme ci kenn Serigne Touba loolu leer na ma nañ kuy wër doomi Serigne Assane wala nga koy xool demal ci Serigne Amdi Khady jàmbaar ja nga xam ne dégluwu lu dul Serigne Touba ne nangam mu jóg def ko na ko Serigne Touba bëggee loolu rek lay moom lay liggéey Cheikh Bassirou mii nga xam ne tey jii moo fi nekk doon ndawul sëriñ Touba sëñ bi bañ na ko ba ni mooy samay tànk mooy samay loxo kon kooku ku ku dal ci kawam ci kaw Serigne Touba nga dal te Serigne Touba kenn du dal ci kawam di réussir doo am ndam gàcce képp nga ciy mujje ba foo mën a mujj ci àdduna Cheikh Abdou Bali mii doomi Serigne gay ne Gaynde ma jàmbaar ja ku ne xam na ni sëñ Cheikh Mbacke yoonu murit ak lim ci liggéey ak sëñ Cheikh Fall Baye góor mu baax ma nam ne woon ñàpp ci am topp ko ku sëñ Cheikh Fall topp rek exemple la ci wane ni yow ngëneel nga kon na ngeen xam ni wax ju ñaaw ji adduna sépp nan xam ni doomi sëñ Assane du wax lu ñaaw mukk ci adduna di ko jëme ci kenn sëriñ Touba. rawatina nag ñi nga xam ne tey ñooy sagub yoon wi di doxal kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi doxin wu rafet te kenn jiitu ci sëñ lu kenn mënu ko ci nga tourné di wax naan nangam mos koy dégg muy wax moom euh, maam Cheikh moom ki naan maam Cheikh tem ne Canada mos ma digg muy wax ni bin fi taalee jàkkay ibaadu rahmaan yi sëñ mudaminta dañoo woon ni na ngeen dem tuubali sëñ Saliou ñu lànk loolu la tax ma ko doon wax beccu cuun la doon dal ci kawam ba wax loolu mais moom beccu dañuy beccu jëfewul ndigal bay dal ci kawam mais moom bu ne Cheikh Ibra laa yaakaar wala ci laa bokk xalifab Cheikh Ibra Fall digal la nga lànk lam la digal kon yow say wax jër jër sa déglu wala jër sa xalaat na ko ñëpp jàppe daal koo xam ne néewul ci ndigalul kenn ci boppam la ne néewul ci sëñ bi néewul ci ndigalul sëriñ bi xamee su ko xamee sut kum doon doomi sëriñ Assane daal ku koy xool nanga xool sëñ am di xari ak rakkam yi fi nekk ñëpp xam leen di leen dégg ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa ñu ngi sant bu baax tey gërëm kàddu yi nag suñ sañoon dina fi gën a yokk gën fee rafet waaye tey dañoo am maanaam aw naqar wu dal ci suñ kaw woo xam ne am na loo xam ne wax dëgg yàlla lii dama ko xësoon wax ba pare ba woote ko ba tey mënuma koo ñàkk a def waaye tey jii ki nga xam ne mooy sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar xalifab sëñ Abdoulaye Fall Ndar moo fi bàyyi ko tey jii wuy ji maamam ju baax ji Cheikh Ibra Fall yàlla na ko Cheikh Ibra teeru te teral ko moom itam nag ku mel ni sëñ Modou Abdoulaye moom exemple la tey ci njabootu Cheikh Ibra Fall gi ndax moom itam ndigal rek ci la nekkoon ba saa borom jëlee ko fi ci liggéey la nekkoon nii bu ko seex Cheikh Sidi Muxtaar jox di ko liggéey liggéey ba sax àggagul mu wuy ji kon moom ci ndigal la fi bàyyi koo dem loolu moo di bàyyi faal man mii di wax ak yow nag lépp lu ma wax ci bàyyi faal ku yàlla bind mënoo koo dindi sëñ Matar Mbooje ma jur sëñ ma Modou Mbooje ko jur Cheikh Ibra Fall gërëm sëñ Modou Mbooj ba ni ko Ahmadou mu ni ko faal mu ni ko dinaa defal foo dëkk mu mel ni Ndar sëñ Modou Mbodj ni ko adduna téye naa ko fon ko mu xeeñ ma xonn ma sànni ko bëgguma fi dara lépp loo may defal nag ma ko defal ëllëg yomal xiyaam kookee mooy sama waajur sëñ mat sëñ mooy sama maam sëñ Modou Mbodj sëñ Matar Cheikh Ibra Fall ko yar sëñ Matar moo yor sëñ Bay Mbodj sëñ Bay Mbodj ma kon lu ma nit di jàngal ci taalib bi amut xam naa ko baax a baax Cheikh Moustapha Fall mu baax ma nga xam ne moo fi njëkk a wutu Cheikh Ibra Fall moo waxoon ni ab ab ak taalib bi su fekkoon ab kaamil su lëjee mboo jën ñoo koy lijjanti kon ñi ngi sant bu baax tey gërëm di sant mag ña te di leen dollee roy te xam ni lan awoon rek mooy dëgg koo fi gis mu jaar weneen yoon na nga xam ni néewul ci dëgg ci tappale na ak caaxaan doomi Cheikh Ibra musta wax lu bon musu koo def sëti Cheikh Ibra Fall yi nga xam ne si deret Cheikh Ibra daw ci ñoom waxuñu lu bon defuñu ko te duñ ko wax te duñ ko def wasalaam jërë ngeen jëf